salaamaaleykum mbokk réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission sans filtre jot ay ndaw ñi la fii ci réew Rewmi FM crédit bu jot lay am mais 16h euh, 15 jàpp 16 euh, ñu fi invité ay ndaw tey ñu dalal euh, ONG RABEC di réseau d'association pour le bien-être communautaire Aminata Diouf moo di gestionnaire de projet coordonnatrice du département de la santé de la reproduction ak El Hadj Thiam relais communautaire consultant en santé de travail ñoo leen fii toogal. Euh, ñu fas yéene euh, waxtaane rek nu ñuy def ba maintenir xale jigéen ñi ci école bi ak yeneen ponk yi nga xam ne euh, ñoo soxal gone yi laata ñu dalal suñu gan Mor Fall yaa ngi fii ma bàyyi la nga nuyoon teg bokku déglukat yi. waaw Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu mboolem ñi ñuy déglu ak di ñu teelu saa su nekk à travers votre émission donc li nga xamante ne ànd nañ ko tey ci rubrique actualité du jour dañ koy accentuer ci marche bi nga xamante ni waa opposition bi ñu ko bëggoon teg ànd ko ñi nga xamante ni ñooy yeewee askan wi mu koy daal di euh, annulé euh, li nga xamante ne lañ ñu jël comme excuse nee nañ nag dañuy bañ li nga xamante ne moom mooy euh, trouble à l'ordre public moo waral ñu daal di di dàqandi boobu nga xamante ni dañ jàppoon tey ngir mën a amal li nga xamante ni mooy ab manifestation ki ko xam ne nag moom moo nekk Aïda Mbodj nekk ci responsable yi nga xamante ni ñoom ñooy ànd ak ñii di Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Déthié Fall ñi nga xam ne ñoo initié woon boobu les marche mel ni nag euh, li xam waxaat nañ ko nag ci ni nga xamante ni moom mooy motif bi mel ni dafa am benn médiation religieuse bu ñu def euh, ci boobule mbir ak préparation tabaski bi ak jamono ji ni dëkk bi tëddee moo waral ñu daal di jël dogal daal di euh, teg loolu nga xamante ni moom mooy boobule marche and nañ tamit beneen motif muy examen yi nga xamante ne ñu ñoo am jamono ji ci fin d'année bi ak BFM bi CFE bi ak bac bi loolu aussi boole nañ ko ci motif yi nga xamante ni moom moo waral ñu tey dañuy daal di bàyyi waaye lii loolu nga xamante ni moom mooy euh, boobile manifestation ñu bëggoon a amal tey euh, te mu mel ne ay préfet yu bëri bëri yu yu nekk ci biir Dakar daanaka euh, yëguñu woon boobu mbir ba ñoom dañoo doon ginnoon ay notification yu war ne dafa am risque de menace à l'ordre public ak risque d'infiltration par des individus mal intentionnés loolu moo nekk daal information bi nga xamante ni génne nañ ko tey ginnaaw bi nga xamante ni ñu si bëri ñu doon xaarandi tey Dakar xoo am tuuti yëngu ak marché boobu nga xamante ni waroon a juppee euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa kuje gi. sage décision en tout cas pour euh, coalition Yewwi Askan Wi moor euh, ONG RABEC lañ fi dalal mm-hmm. RABEC moo di réseau d'association pour le bien-être communautaire Aminata Diouf ak El Hadj Thiam ñoo leen fi toogal Aminata Diouf ci yow lay tàmbali yaay gestionnaire projet coordonnatrice département santé de la reproduction ñu am mbégte contenté dalal la ñu bàyyi la nga yóon ceeg mbokk auditeur Rewmi FM asalaamaaleykum Sylvie Euh, Mor maa ngi leen di mm-hmm. nuyu. Euh, di rafetlu euh, émission bi ak invitation bi aussi comme ni nga ko waxee rek. maa ngi mm-hmm. tudd Aminata Diouf. Mm-hmm. nekk membre ci ONG RABEC. nekk fa coordonnatrice département santé. d' accord El Hadj moom relais communautaire la conseil consultant en santé travail yow tam yaa ngi fi ñu bàyyi la nga ñëw ci bokk auditeurs yi. asalaamaaleykum soxna Sylvie maa ngi lay ziar bu baax di ziar aussi monsieur Fall Mor di ziar auditrice yëpp. waaw man maay élage Hadj di relais communautaire di membre ONG RABEC. Mhm. mais aussi tamit di yëngatu ci santé sécurité travail. d'accord am na solo merci beaucoup ñu bàyyi leen rek peut-être un petit commentaire ci euh, rubrique actualité bi nga xam ne Mor Fall indi na ko euh, tey euh, ñëpp ñu doon xaar dëkk bi jaxasoo ndax coalition Yewwi Askan Wi bëggoon nañ def manifestation waaye mu mel ni rek dañ ko mujjee dàkk à la place concert de casserole la ñu woote suba. Mhm. seen appréciation Aminata. voilà merci Sylvie di ko rafetlu rek. Mm-hmm. parce que comme ni réew mi mel temps yi ak jamono ni mu méttee donc damay rafetlu lu tax ñu pousse manifestation yi. parce que wax nañ ko ñoom euh, am na ay examen yu war a am. tabaski mm-hmm. baa ngi ñëw nit ñi mm-hmm. dañu tal yóbbu seen njaboot dara. ñi dañu tal pour tabaski bii def dara ak seen njaboot. donc ce bien comme ñoom bu ñu ko defee nii xalaat ne ah war nañ ko mën a pousse parce que lii ak lii moo tax donc ma duma def lu dul rafetlu loolu rek. waaw waaw comme :fra ni ko ñëpp waxee rek defe naa ni Euh, kenn ku si nekk li ñuy def pour jàmmi askan bi la te ñun it dañuy yëngatu pour jàmmi askan bi donc lépp lu ñu def loo xamante ne pour jàmmi askan bi la dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. waaw voilà ñu soobu rek kon ci suñu waxtaan mbokku auditeurs yi tey suñuy gan ONG RABEC réseau d' pour le bien-être communautaire waaye dama leen di bàyyi rek ngeen gën ñoo xamal euh, réseau boobule euh, lan lan moo ko tënk ak lan moo ko tax a jóg ak lan mooy ONG RABEC. waaw jërëjëf soxna Sylvie ONG RABEC nag dafa nekk benn kuréel bi nga xamante ni ñu ngi ko reconnaître en ONG depuis 2003 donc di yëngatu ci li nga xamante ne moom mooy jàmm askan bi ak nekkinu askan bi donc di kuréel boo xamante ne ay association ñoo ko boot plus d'une cinquantaine d'associations ñu ngi ci biir donc di dox si li nga xamante ni moom mooy euh, programme d'éducation au développement mm-hmm. donc moom nag ñi ko concerné du benn frange population bi kese ñëpp la boole ndoo li ko dalee si xale bi si njegemaar bi si jànq bi ci maire bi ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy ŋànk di ñu diriger di auto di élus locaux yi. Mm. kon ONG RABEC dafa nekk kuréel boo xamante ne bàyyiwul dara. am mu ngi dox nag si juróom-benn département lañ ko tënk département bu nekk nag am nga sa programme te it am nga sa cible. Mm. suñ jëlee département bu mel ni protection sociale de mm. l' ñoom cible yi moom mooy xale yi. donc am na programme yoo xamante ne benn bi ñu ngi ko tuddee PLAIR e programme de lutte contre l' boobu mi ngi concerné xale yu jigéen ñi nga xamante ni soit amuñu chance su jàng école wala ñu teel leen a génne école. Mm-hmm. donc ñoom lay permettre ñu mën a am beneen chance mën a insérer aussi société bi. Mm-hmm. donc ñu am réinsertion sociale mais aussi réinsertion économique. Mm-hmm. ndax dañ leen di former lu mel ni si wàllum couture coiffure restauration broderie activité travaux manuels ak yooyu noonu yëpp. pour ëllëg ñu mën a defal seen bopp mën a suturaal seen bopp suturaal seen waajur. am na aussi Ardan agir pour le respect des droits de l' enfant boo xamante ne xale ndaw yi nag la intéressé. parce que dañu gis ni am na jour yoo xam bu dee xale yi jàng jànguñu dañuy nekk si mbedd mi di dugg si naka su dul noonu donc ñu xalaat naka lañ leen di récupérer parce que xale soo ko occupé wul rek mu wut occupation mm-hmm. te occupation bu muy wut soit mën na neex ay waajuram wala mën na bañ a neex ay jërëm mm-hmm. moo tax dañ leen di jël les samedi soir en collectivité éducative di leen jàngal di leen defaral des des sessions de renforcement de capacité mais aussi di leen defaral ay activités yoo xamante ne dafa leen di gën a yee ci jamono bi nga xamante ne moom la ñu nekk. Mm-hmm. am na aussi tamit programme boo xamante ne pour xale taalibe yi la comme ni ma ko waxee rek xale soo ko occupé wul mu ut occupation xale taalibe yi aussi tamit dañoo seetlu ni euh, dañuy nekk di jàng lundi mardi ba mercredi samedi ak dimanche. donc jeudi euh, mercredi soir jeudi ak vendredi du ñu jàng ñu xalaat programme boo xamante ne dañ leen a occupé donc mercredi heure bi soo demee si daara yaa ngi fa fekk agent yi ñu ngi leen di jàngal cours français alphabétisation. Mhm. donc les jeudis le matin dañuy def activité sportive cirque wala yeneen activités yoo xamante ne dañ koy kii le soir aussi tamit dañuy def soit informatique wala couture. mo le vendredi aussi même chose donc mhm. jour yi nga xamante ne du ñu du ñu jàng du ñu def dara lañ leen di fexe occupé ba ñu bañ bañ a dugg ci leneen mhm. donc loolu mooy département protection sociale de l'enfant am na aussi département économie sociale et solidaire bi nga xamante ne ñi ko intéressé mooy jigéen suñu yaay yi nga xamante ne ñi ngi dugg si jënd ak jaay di dugg si activité yu ndaw yi si wàllum entrepreneuriat naka lañ leen di gunge ba ñu gis seen bopp si li nga xamante ne moom la ñuy jàng mm-hmm. ndax da ngay gis ku daaj taabal ku mel ni sama yaay bi ma juddoo ba léegi mi ngi daaj taabal taabal bi soppeekul ni mu mel noonu la mel mm-hmm. te normalement taabal bi dafa war a avancer mm-hmm. taabal bi yëg si boppam moom mu yëg boppam waaye tamit kër gi yëg boppam si liggéey bi donc aussi doo boy département économie sociale et solidaire am na département dynamique jeune département boobu li ko tax a jóg mooy étudiants yi nga xamante ni dañuy doog a génn wala boog ñiy doog a am bac amuñu orientation xamuñu fu ñu jëm donc ñooñu dañ leen di accompagner defar leen des sessions de formation boo xamante ne lu mel ni auto évaluation parce que nit ki pour nga mën a orienté wu foog nga xam sa bopp. Hmm. donc defar leen des sessions d' auto évaluation donc des sessions yoo xamante ne dañ leen permettre ñu mën a xam. Euh, seen seen avenir naka lañ koy mën a gérer aussi tamit les étudiants qui sortent fraîchement des universités mm-hmm. ñoom tamit dañuy am problème insertion mm-hmm. donc ñooñu aussi defaral leen ay formation orienté leen ba ñu mën a am insertion pour ñu mën a am liggéey mm-hmm. am na aussi département citoyen citoyenneté et bonne gouvernance boobu ñu fi intéressé mooy les élus locaux les euh, comment dirais-je les leaders les euh, euh comment dirais-je les présidents des associations et de groupement de promotion féminine loolu li tax ñu xalaat ko mooy nit ki waroo toog sa kër naan maire bi lay xaar mu defaral ma wala état bi lay xaar mu defaral ma. Mhm. yow en tant que nit en tant que citoyen am na lu la war. Mhm. léeg-léeg nag ñenn ñi xam li leen war waaye léeg-léeg ñenn ñi nekk ci fa ñuy décider te xamuñu lu leen war. Mhm. donc département boobu dafay organiser des sessions de formation yoo xamante ne dafay dem toujours dans le sens de l'orientation dans le sens de la promotion de la citoyenneté et aussi dans le sens de la la participation citoyenne. a aussi le département culture. boobu aussi dañoo gis ni euh, ci biir koñ yi y a des acteurs culturels yoo xamante ne ñoom seen wàll boobu xamuñu ay acteurs culturels lañu. Hmm. ñu nee ñoom seen wàll xamuñu ak seen ak ay acteurs culturels mooy tailleur bi nga xamante ne mi ngi si bopp koñ bi. wala uude bi nga xamante ne mi ngi si bopp koñ bi wala léttkat ba sax bi nekk si koñ ba moom acteur culturel la te xamu ko. Hmm. donc fexe def seen promotion. seen liggéey fësal ko ba ñëpp xam ko mais aussi bëgg leen dajale leen benn groupement boo xamante ne kenn ku si nekk benn réseautage lay nekk ku si nekk loo soo soxlaa sa morom dafay gën a yomb donc loolooy six départements yi nga xamante ne moom moo nekk bu dee aw ma département bu ma fàtte. Mm-hmm. donc euh, di département santé. Mm-hmm. peut-être damay bàyyi mm-hmm. Aminata moom mu ñëw présenter ko bu baax. d'accord waaw daanaka euh, wax na département yi en général euh, mu des département santé bi nga xamante ne depuis 2004. ONG RABEC def na ci ay projets yoo xamante ne dafay nekk ci koñ yi. di def ay causeries de quartier. parce que département santé li ko tax a jóg rek mooy jeunes yi en général. jeunes yooyu nga xamante dañu bëgg ñu am euh, benn adolescence boo xamante ne day normal ba pare mu am de qualité noo tax dañuy dañuy dañuy def benn programme boo xam ne depuis 2004 ONG RABEC di def programme yoo xam ne dañuy dugg ci koñ yi euh, def ay causerie de quartier dajale ay jeunes fii yi nga xamante ne ñu ngi si âge puberté ñoo am 12 ans 11 ans ba 18 ans di leen defal ay thèmes yoo xamante ne dafay laal lu jëm ci wàllu santé sexuelle et reproductive donc depuis 2004 ñu ONG RAV mu ngi koy def da koy def dans la région de Dakar da aussi dans les autres locales yi nga xamante ne am na fa ay ay ay ay antennes lu mel ni Kër Massar lu mel ni Parcelles Assainies et même au delà même de de Dakar aussi. Mm. donc depuis 2004 ONG RAV mi ngi accompagner jeunes yi ci wàllu éducation sexuelle boobu pour leen lay sensibiliser par rapport à leur information liée à à leur santé sexuelle et reproductive. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yéen bu ma dégg déggul baax de mel ni yéen euh, bàyyiwoo leen kenn yéen ngi intervenir euh, ci domaine yu bëri bëri di jàppale aussi ñu bëri mais dafa mel ni ci xale jigéen ñi ngeen di gën di intervenir mooy xale yi jigéen ñi ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci école bi. waaw ñun nag comme ni ko Thiam waxee dañuy intervenir ci ci ci. population bi en général parce que mm. le bien-être communautaire moo ñu soxal waa mm. ONG Rabik mm. donc comme ni mu ko waxee am ne jigéen ñi la laal am xamante ne comme département enfance xale yi la laal donc am na xale yoo xamante ne de sept ans ba seize ans mooy ardent bi am na xale yoo xam ne xale taaliba yi aussi am na aussi ay jeunes filles yi nga xamante ne comme plaire bu mu wax sànq mooy les enfants qui sont en rupture maanaam jigéen ñi nga xamante ne ñoom dañu bàyyi jàng dañu teel a bàyyi jàng wala am na ñoo xam ne sax musuñu bàyyi jàng donc accompagner leen dañuy def la réinsertion sociale si ñoom donc di leen accompagner avec des des matières yoo xamante ne bu ñu génnee comme lu mel ni couture wala coiffure wala restauration dinañ mën a demal seen bopp hmm. donc ONG Rabek mi ngi si mi ngi si couche yëpp population bi en général lay lay lay accompagner. Hmm. Hmm. d'accord boo demee aussi euh, dans les régions wala dans le fin fond du Sénégal yenn villages yi euh, gis nañu aussi xale jigéen ñi dañuy teel a bàyyi école parce que euh, dañu war a jàppale seen yaay ñi dañu war a dem sëyi yéen lan mooy seen taxawaay noonu lan ngeen mën a teg euh, ban programme ngeen teg pour euh, xale yi mën a continuer seen jàng surtout xale jigéen ñi. Mmh. waaw concernant euh, partie boobu defe naa looloo ñu poussé sax ñu bind requête boo xamante ne c'est une requête nationale boo xamante ne dafay toucher les villages qui sont au fin fond du Sénégal. Mmh. parce que comme ni ko Amina waxee rek jeunes yi dañoo nekk ci monde boo xamante ne les temps les parents n'ont plus le temps d'éduquer les jeunes. si rawatina jeune fille. Mm. sànq yaa ngi naan Rabec dafa dafa laal couche yëpp. on a dit le bien communautaire dans la communauté nag ñëpp ngi ca. Mm-hmm. xale baa ngi ca góor baa ngi ca jigéen baa ngi ca. Mm-hmm. même ñi nga xamante ni ñu ngi nekk troisième âge ci communauté bi lañ bokk. ndax dans le programme santé peut-être Amina expliqué ko am na programme boo xamante ne pour troisième âge yi la naka nga leen di gungeeg yooyu noonu yëpp. pour revenir si sa question bi nga xamante ne ban taxawaay am pour. xale yi nga xamante ni ñu ngi au fin fond du Sénégal am jafe-jafe si wàllum santé de la reproduction mooy ñun li ñuy def mooy xamle ngir aar. Mm-hmm. donc parce que nit ki su xamul rek dafay naaje si erreur wala boog lépp lu muy def dafay koy def si loo xamante ni si lu mu xamul la donc soo fexee ba xamal ko daal di koy teg si raay yi am na yenn difficulté yoo xamante ni du si dugg donc tey jii nii dinañu agir si parent bi parce que à chaque session de formation dinañ def benn thème bu ñu tuddee communication parent enfant. parce que communication parent enfant dafa dooree ca yaay ji bu muy ëmb doomam bu muy ëmb doomam mi ngi communiquer ak moom xaw ma ndax mu mu xam ko mu ñàkk ko xam mais ci ëmb ba ba la tàmbali di communiquer ak doomam ba ci nàmpal ba ba muy feral xale ba ba xale bi di nekk xale ba muy jugee xale nekk adolescence nekk njegemaar ba nekk ki nga xamante ne moom mooy mag mhm. communication warul warul absenté donc communication dafa war a progressive ànd ak âge rapport ak jàng bi nag ñëpp ñëpp nekk nekkandoo école wala ñëpp ñëpp mënuñoo réussir ndoo école. Mhm. parfois problème bi ñuy am mooy problème d'orientation. damay jël exemple bi ñu demoon euh, benn village bi ñu demoon bay la dafa am benn centre de formation bu takkaloog benn lycée. donc gis nañ ni xale yi dañuy fréquenter lycée mais suñu demee ba âge ba def bac ba pare wala avant si âge adolescence suñu jugee école dootu ñu am beneen choix parce que dañu naan centre ba ku nga xamante ni dafa échoué moom moo war a dem centre de formation. Mhm. ki nekk centre de formation xam na li mu bëgg kooku il est déjà orienté mais ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk école. Mhm. nekk ci liise bi <laughs> lan mooy suñu profession. par contre ki nekk ci centre moom am na profession. Mhm. donc ñun li ñuy prôné mooy la communication ouverte entre les parents et les enfants. pour mën leen a teel a parce que xale bi yaay ji mën na décelé wala papa ji mën na déceler ay capacité avant moo àgg si yenn âge su boobaa da koy orienté foofu. parce que tamit xale yi doo leen forcer loo xamante ne bëgguñu ko mhm. soo leen forcer loo xamante ni bëgguñu ko tôt ou tard dañ ko fay bàyyi dem taxawaale ji wala ñu dem defi leneen mhm. donc loolu la ñuy prôner la communication entre parents et enfants mu nekk benn communication ouverte mu permetre la nga mën a orienter sa doom mën a suivre sa doom mais aussi mën a assister sa doom waaw mhm. ok ma ma ma am tuuti lu ñëwaat ci ci ci am seen programme parce que j'ai vu que ñi bind seen programme yi santé de la reproduction def euh, économie sociale solidaire mhm. ak euh, citoyenneté ak euh, bonne gouvernance mhm. mais laaj ba xam programme yi ngeen tëgg ndax da ngeen na def benn genre diagnostic d'abord à l'avance pour mën a xam ne yii moom moo nekk priorité yi war a mën a engagé wu kii mën a jàppale askan wi wala boo dafa nekk programme yoo xamante ne ça c'est déjà établi yu ñu teg yéen da ngeen ñëw rek mettre ko en œuvre pour ngir mën a doxal seen programme waaw parce que programme yi yooyu noonu ce sont des titres rek. Mm-hmm. mais programme bu nekk am na lu koy alimenter. li koy alimenter nag du dangay jékki-jékki rek def ko. il faut aller vers les gens. Mm-hmm. vivre vivre avec eux. apprenez d'eux, mm-hmm. donc boobu benn phrase la boo xamante ne suñu directeur di Youssou Badji ma koy saluer de passage. mu daf ñu koy faral di wax. parce que nit ñi soo leen jegewul doo xam seen tawat mhm. tey munoo toog sa bureau daal di bindal tawat waa ñaari tali waa ñaari tali ñoom ñoo xam la fa xew mhm. munoo toog sa bureau bindal waa Kër Massar waa Kër Massar ñoo xam la fa xew mhm. donc pour nga xam la fa xew foog nga dem si ñoom mooy enquêtes yi nga xamante ni dañ koy def des enquêtes préliminaires donc fekkee ni dañu war a dem benn gox wala ñu constaté ni benn gox soxla na dañuy yebal ay ndaw yoo xamante ni ñi ngi foofu di saluer benn koo xamante ne moom la ñu yóbboon euh, village yu bay la mu defal ñu benn enquête boo xamante ne moo ñu permettre ñu xam yan axe la ñuy intervenir donc après enquête yooyu noonu moo ñuy permettre ñu ñëw toog def benn lël convoqué ñi nga xamante ni ce sont les professionnels ñu teg ne problème baa ngi nii bu dee problème santé de la reproduction la dañuy woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen professionnel ñu waxtaan ak ñoom ñu orienté ñu mm-hmm. bu dee problème employabilité des jeunes mm-hmm. même chose bu dee problème économie sociale et solidaire concernant les femmes aussi même chose donc dafa am ñoo xamante ne ñoom ñooy nekk suñu ginnaaw di suñu kilifa yi di ku mel ni nu mu Ndiaye di ko saluer au passage ak Omar Fall. Mhm. donc ñooñu ak euh, tonton Maf maa ngi koy wax léegi dañ nekk ay ñoo xamante ne dañoo yàgg ci société bi amul fu ñu jaaru ci société bi amul casquette bu ñu amul donc saa yi ñu amee programme rek dañuy def benn lël. woo ñëpp ñu daal di tënk loo xamante ne suñu demee si programme bi noonu lañ koy doxalee. Mm-hmm. donc loolu ñu permettre ñu mën a interagir par rapport ak yeneen programme yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. Aminata li ma ci yokk rek comme ni mu ko waxee rek parce que ONG la bi dafa nekk ci biir population. donc bu nekkee ci biir population li ko tax a jug rek wax nañ ko sànq mooy le bien-être de la communauté population bi moo ko tax a jug donc bu fekkente ne tey dafay def benn programme wala benn wala war a bind benn projet. donc du toog nii rek bind ko. dañuy wàcc sur le terrain ñun ñëpp presque dañuy wàcc sur le terrain bu ñu wàccee sur le terrain nag xool les réalités du terrain donc bu ñu xoolee les réalités du terrain xool ne population bi lii la soxla lii mooy jafe-jafeem comme dans genre la vie rek mm-hmm. donc dañuy jël les priorités teg ko donc bu ñu xoolee li nga xamante ne population bi la soxla lii mooy seen problème ñu toog autour d'une table ñu waxtaanee ko bind projet bi tëral ko wut nag ay financement parce que du ñu toog nii rek di xaar état. Mm-hmm. comme ni ko Thiam waxee rek ñun dañu def deux requêtes la le département de santé dañu bind deux requêtes. une requête régionale ba nga xamante ne moom moo concerne le, le la région de Dakar et une requête nationale nga xamante ne day day génn au niveau de Dakar. Mm donc requête yooyu aussi avant ñu koy def dañu def benn fiche d' enquête nga xam ne dañu koy envoyé ci yenn zone yi bu ñu defee fiche d' yooyu envoyé ko ñoom ñoo ñuy wax ne ah, problème bii la ñu am en matière de santé sexuelle et reproductive. donc fii am na tabou euh, parents enfants am nañ problème foofu ñu waxtaan wala les grossesses wala ou non désirées bëri nañ foofu donc si fiche enquête boobu nga xamante ne ONG Rabik da koy def. loolu moo ñuy permettre ñu sukkandiku ci loolu mën a bind nag suñu projet moo tax département bu ne day am ay enquêtes yoo xamante ne da koy def au préalable ñu soog a nag toog autour d'une table def nag suñuy activité wàcc sur le terrain am na solo côté boobu damay juste damay sof rek si li Aminata wax mooy dafa am loo xamante ni dañu ko gëm te noonu la ñuy doxee mm-hmm. muy savoir bâtir avec ce que l'on a parce que ñàkk pexe loolu si wàllu boppam moom mooy pexe mm-hmm. d'ailleurs loolu suñu slogan ñàkk pexe pexe parce que tey doo toog ne damay xaar le gouvernement mu defaral ma lii. wala ma toog mu gouvernement le gouvernement a trop trop à ndax Sénégal lu mu toll rek plus de quinze millions d'habitants kenn ku su nekk di xaar état defe naa ne du sotti. Mm-hmm. kon tey ñun bokk. pour ñun dañoo jàpp ni fa loxo état mënul àgg hmm. ñun war nañ mën a ànd ak population bi àggale ko fa ba li nga xamante ne mooy tawatu population bi même buñ ko mënul saafara à cent pour cent ñu mën si hmm. que li ñuy prôné rek mooy nit ki am nga sa wàll boo xamante ne moom nga war a jëf leneen ni rek dañ lay accompagner wala ñu assister la hmm. waaw alors li ma si yokkaat rek Sylvie mooy euh, ONG Rabec moom en général li muy gën a def mooy formation accompagnement ak suivi parce que xam nga nit ki da koy former rek des fois nga bàyyi ko mu dem mais ONG Rabec da lay defal ba pare def suivi bi def accompagnement gunge la nag xool sa formation bi mu la defal ba xam yow yan jéego nga ci teg wala fan nga mujjee ak formation boobu donc en général en sama modo ni ma ko mën a waxee rek ONG bi day def formation suivi accompagnement. Mm -hmm. mais sànq sama question bi ma laaj à par waxtaan bi ngeen di sekk ak wayjur yi laaj xale yi lan ngeen di teg euh, pour xale yi daal mën a jàng surtout xale yi jigéen ñi. waaw par rapport ak xale yi jigéen ñi boo xamante ni ñu ngi koy développé mais dans la région de Dakar. donc particulièrement à Biscuiterie Grand Dakar HLM Parcelles Assainies ak Kër Massar di programme de lutte contre l'enfance en rupture nga xamante ne mi ngi concerné xale yu jigéen ñi nga xamante ni soit amuñu chance su jàngi école wala ñu teel leen a dàq école mhm. donc ñoom lay jël ñi nga xamante ni elles son âgées de douze à vingt ans am na sax dérogation léegi so après dinaa si ñëw mais douze à vingt ans boobu la ñu tàmbali donc ni ñu koy tàmbalee mooy déjà xam lan mooy jafe xale bi ak lan moo tax mu génn école bu dee dafa jàngi école mhm. bu dee jàngul école mooy jafe donc bu ñu demee ba nga xamante ni identifier nañu jafe-jafe bi comme ni ko waxee dañuy toog lël waxtaan daal di xool yan axe lañ koy lañ koy orienté parce que nit ki soo buggee soo jugee pour jàppale ko foog nga xam ko donc enquête sociale boobu noonu moom moo ñuy permettre ñu mën a cerner problématique bi nga xamante ne moom mooy moom mooy bloqué xale bu jigéen bi. Mm-hmm. après nag ñu dugg si programme d'éducation programme d'éducation su ma ko waxee mooy am na thème bu ñu tuddee dynamique communautaire. Mm-hmm. di di. cours boo xamante ne dafay permettre xale bu jigéen mu uuf mu ubbeeku. Mhm. mu wax dëgg-dëgg lan mooy problème am. parce que mhm. blocage yu bëri. lan moo ko bloqué. très bien blocage yu bëri dafay nekk d'après li nga xamante ne expérience bi ñu si am blocage yu bëri si kër ga la. donc parfois y a des choses yoo xamante ne sa se passe dans les maisons kenn du si rendre compte. Mhm. te xale bu jigéen bi mi ngi koy dund mu intérioriser ko. donc foofu dañ koy permettre mu extérioriser li nga xamante ne moom lay dund yëpp ñu xam problème mun koo am na tamit programme santé de la reproduction parce que la santé de la reproduction ce n'est pas seulement la santé sexuelle mm -hmm. mais aussi ça va au-delà de la santé sexuelle ça va la santé mentale et la santé psychologique de la personne donc mu dugg programme santé de la reproduction dugg après programme santé de la reproduction nag am na ay cours yoo xamante ne dañuy toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen seen àq ak seen yelleef maanaam suñu wareef ak li nga xamante ne moom mooy suñu devoir ci société bi mm-hmm. kenn ku ci nekk ñu wax ko place am société bi ñu xam njëriñ bi nga xamante ne amal na ko société bi mais aussi société bi ban njëriñ la ko war a amal loolu moo leen di may ñu yeewu suñu paree loolu nag dañuy dugg directement ci programme de formation bi parce que kenn ku ci nekk ñu bëri suñu ñëw dañuy perte seen estime mhm. dañuy perte confiance en elle parce que soo toogee di waxtaan ak ñoom deux mots trois mots ñu jooy bàyyeeku yooyu noonu donc dañuy fexe ñu jëlaat seen estime ñu gëmloo leen seen bopp naka lañ leen di gëmloo seen bopp am na cours yoo xamante ne activité travaux manuels mhm. ñoom seen wàllu bopp seen premier jour cours ñooy defaral seen bopp sax donc da gis cours boobu su jeexee dañuy am enthousia enthousiasme boo xamante ne elles se disent man musuma gëm ni mën naa lii donc loolu dañ koy dañ siy sukkandiku mu nekk benn tremplin boo xamante ne moo ñu permettre ñu booster leen ñuy dugal yeneen yeneen série de formation yoo xamante ne dañuy dem ba gëm seen bopp xam ne ah actuellement kat c'est c'est toujours possible. Mm. donc il n'est jamais trop tard. Mm. donc ainsi de suite ñuy dem ak ñoom pendant trois mois trois ans parce que programme bi formation bi dix-huit matières lay jël. parce que lu tax ñu def ko 18 matières mooy nit ki dafa war a polyvalente hmm. couture bi su doxul restauration bi dina dox restauration bi su doxul coiffure bi dina dox coiffure bi su doxul broderie à la main dina dox broderie à la main su doxul crochet dina dox ainsi de suite ba mu mat 18 matières pendant les trois années donc mu am benn participation boo xamante ne moom la ñuy def participation mensuelle ak participation annuelle hmm. donc su ñuy ñëw inscription dañuy andi 10 000 leen di jox seen blouse jox leen seen saag yi ñuy defar mais aussi jox leen fourniture yi nga xam te ne moom la ñuy soxla pour jàng. waaw dix mille francs tam cher. kuy jàppale. <laughs> waaw kay. <laughs> kuy jàppale doo baax. <laughs> xam nga dañu ne su yombee trop du baax il faut ñu am participation boo xam te ne dafay jóge si ñoom ndimbal dafay fekk loxo loxoy. loxo borom mu nga parce que tey soo jëlee dix mille francs yooyu euh, blouse blouse tey su fekkee ne danga nga dugg si école yi blouse rek ça ça ça revient à plus de dix mille francs donc blouse leen koy jox si dix mille francs sac bi dañ leen koy jox mais aussi fourniture yi dañ leen koy jox donc fourniture yi si dix mille francs loolu noonu yëpp defe naa ne loo xamante ni ah <laughs> en tout cas weer bu dee bi dafa am participation bi ñuy def. ah nag euh, euh, bu yàggee nag mu nekk école boo xam ne rek. ndimbal euh, <laughs> am xam nga ñaata ñuy participer ah 3000 francs mooy 100 francs par jour pendant 30 jours. loolu nag bu dee bu dee fay la xamatuma nag lan may fay am ndimbal la moom waaw defe naa loolu moom mënul nekk ndimbal lu commencé na waaw projet bi commencé nañ ko depuis 2009 mhm. mhm. depuis 2009 donc bi ñuy doog a tàmbali ñi ngi ko tàmbalee ak 40 adolescentes mhm. mais si contexte bi ñu ko tàmbalee boobu doon contexte bu du participation boobu dañu amoon benn financement boo xamante ne c'était pour lutter contre la traite et pire forme des travail de l'enfant donc ak avec les jeunes yi nga xamante ne ñoo doon accompagner les mendiants wala xale yu jigéen ñi nga xamante ni seen kër seen loxo jotul seen ginnaaw bu baax a baax ñooñu euh, ñooñu ñoo ñoo ñoo leen financé woon pour ñu mën a dem mais financement boobu c'était juste pour neuf mois on s'est dit neuf mois euh, mënoo am temps génne xale bi dans la rue réinsérer ko si réinsérer ko si société bi donc bi ñu demee ba nga xamante ne projet bi dem na à terme si neuf mois bi hmm. reconduire ñu ko mais nous avec non propres systèmes et nos propres moyens et aussi avec les on a su pérenniser ce programme donc 2009 ba léegi ñi ngi koy ñi ngi koy doxal. Mm-hmm. Mm-hmm. actuellement on est passé de 40 adolescentes à 286 adolescentes. waaw mais lu tax tam Dakar kese. waaw bon comme ni ma ko waxee rek xam nga c'est pas facile nous sommes une ONG boo xamante ne amuñu financement fu mu nekk nii li ñuy defal yëpp c'est de nos propres moyens. donc récemment la ñu am yenn yenn yenn accompagnement yoo xamante ne c'est pour les par rapport ak programme mu taalibe yi mais à part programme taalibe amul benn programme yi ñu la fi xamante ne am na financement te n'empêche que ñi ngi koy dérouler ñi ngi dérouler suñuy programme yooyu. donc ñu ngi lancé appel ñi nga xamante ne ñoom ñooy partenaires ngeen baal ma si loolu xaw ma ndax xam damay dugg service commercial donc c'est c'est l'occasion ñu lancé appel yenn partenaires yi ñu ñëw accompagner ONG bi parce que euh, suñu fort mooy nous avons euh, une ressource humaine boo xamante ne bu am doole la donc en notre sein nous drainons une ressource humaine boo xamante ne elles sont prêtes à tout pour mën a subvenir à besoin si si besoin population bi hmm. donc daf leen di jaral lu nekk ñenn ñi dañuy liggéey suñu wàccee dañuy bàyyi seen liggéey daw ñëw ñenn ñi dañuy jàng suñu wàccee dañuy bàyyi jàng bi daw ñëw uniquement pour participer au bien-être communautaire hmm. voilà hmm. Euh, ñu ñëw rek ci euh, ñaareelu pàcc bi maanaam tey euh, gis nañu le 12 juin bi passé c'était la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants hmm. bëri na fii ci Sénégal nguur gi nag lu ñu célébrer bés boobu bëriwul mais yenn pays africains yu bëri ak en Europe gis nañu dañ koy célébrer parce que ñun boo xoolee sax Euh, étude bu gën a récent c' était en 2014 25 pour cent euh, ci xale yi âgé de cinq ak 17 ans ñooy liggéey. Euh, Kédougou ak li ko wër foofu la gën a bëri yéen est ce que tey am nga am ngeen programme boo xam ne wala da ngeen di am taxawaay ci xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen di liggéeyloo ci mbedd yi. waaw comme ni ko Thiam waxee rek xam nga ONG Rabik bàyyiwul kenn. Mm-hmm. daanaka population bi moo ko tax a jóg. donc mu def ay programme yoo xamante ne ndaw yi dañ ci ne parce que wax na ko sànq am nañu programme boo xamante ne Ardan la am na programme boo xamante ne pour taalibe yi la parce que ba léegi xale yi lañu wax mhm. programme plaire bi aussi xale yi la programme centre la production aussi xale yi la donc lu tax ñuy ñuy ñu ñuy gën a jàppale xale yi parce que comme ni nga ko waxee le travail des enfants wax na ko bi ñuy doog ko commencé plaire loolu moo ñu taxoon a jug pour xee xale yi nga ne ñoom la ñuy liggéeyloo à de à seize ans wala de dix à dix-sept ans ñu commencé di liggéey te bàyyi seen njàng. Mhm. donc xale yooyu naka lañ leen di jàppale ñun waa ONG rek mooy dañ leen di def une réinsertion sociale parce que bu fekkante ne jàngoo rek société bi du la reconnaître mhm. donc ONG Rabec taxawaay boobu lay lay lay lay lay def day jël xale yooyu accompagner leen ñii mu leen defal ay formation wax nañ ko sànq avec euh, Ardan avec les talibés donc day jël xale yi nga xamante ne soit ñu ngi ci daara yi Euh, mercredi wala jeudi wala vendredi nga xam ne amuñu cours dañuy dem taxawaal lan mooy mën na leen dal ci ci mbedd mi donc ñooñu aussi dañ leen di récupérer di leen defal ay formation yoo xam ne pratique lu mel ni couture lu mel ni ay plomberie lu mel ni aussi électricité donc bu fekkente ne xale yooyu dañ leen dañ leen jàppale ñu mën a réinsérer wu si biir société boobu peut-être travail boobu dina xaw a wàññeeku parce que loo gis rek dafa am cause hmm. donc cause boobu ñun moom moo ñu moo ñu tax a jug ñun ONG ñu ñu taxee jug mooy ni mu ko waxee sànq rek mooy defal defal leen une formation boo xamante ne ñoom bu ñu génnee rek dañ mën a xam ne ah ñii kat am ñu métier. donc formation boobu da leen di téye du mel ni comme euh, formation pédagogique nga xam ne mhm. moo nekk école mais formation pratique la boo xamante ne ñoom dinañ mën a gis seen bopp ne ah lii kat. moo gënoon la ma nekkoon par mm-hmm. exemple moo gënoon ma toog kër ga wala ñu may liggéeyloo ci nangama nag maa ngi jàng comme samay morom nu ñuy jàng parce que mm-hmm. dañuy yor saak dañuy yor mm-hmm. blouse dañuy yor yooyu ak yooyu mu mel ni taalibe yi mel ni les jeune filles du plaire comme euh, aussi euh, ardent avec euh, authentique nga xamante ne ñoom tamit chaque samedi dañ leen di jël di leen defal ay cours de renforcement donc bàyyi ñu xale yooyu parce que bu ñu xoolee ne le travail des enfants nekk yoo xamante ne pure forme la donc ñun loolu la xeex mm-hmm. ONG Jada bi day jël xale yu accompagner leen di leen ay formation pratique yoo xamante mm-hmm. Mm-hmm. moom mooy euh, euh, formation wala am euh, am na nu mu benn comportement bu mu am këram ay parents am nu ñuy kéeg moom moom soxlawul formation mais am na accompagnement bu soxla est-ce que mbir mi dafa dafa des rek ci wàllu li nga xamante moom mooy formation wala mais am na accompagnement am na euh, réorientation ñi orienté nit ki ak li nga xamante ne moom mooy euh, insertion sociale yu ni mel mhm. est-ce que yooyu am na seen biir kii si loolu laa wax tantôt nee naa looloo ñu tax a jóg ñun waa ONG Rabel mhm. bu ñu la defee formation ba duñu la bàyyi dañu la mhm. defal suivi defal la aussi accompagnement te ci biir formation bi comme ni ko euh, monsieur Thiam waxee rek boo ñëwee boo jëlee tey plaire am na ay cours yoo xamante ne dynamique communautaire la tudd. am na ay cours xamante ne centre la production la tudd du question de formation pratique nii rek. mais dañ lay defal formation boo xamante ne yow ci sa wàllu bopp yow di nga mën a nekk maanaam di nga di nga am une confiance en soi et une estime de soi bi ñuy wax. parce que nit ki tam bu gëmulee boppam rek loo ko mënti jàngal ak loo ko mënti gunge aussi du dem. donc ñu loolu la ñuy gën a dugal seen bopp bu ñu bu ñu leen waxee ne ah ay nit ngeen te da a a def nii comme seen ngi def li ñi ngi def gunge leen ci ci ci waxtaan yooyu nga xamante ne da leen di permettre ñoom ñu mën a génn ñoom li nekk si ñoom. Hmm. parce que aussi du formation académique bi am ci école yi. donc dañ leen di defal formation boo xamante ne pédagogie lay doon. Hmm. donc boo dalee lay permettre yow en tant que xale nga génn li ne ci yow ni lii laa bëgg fii laa bëgg a dem. Hmm. defal la euh, lu mel ni moom projet de vie na ah xale bu nekk kat am na moom projet de vie. lan mooy sa projet de vie ñu déglu leen nag ñoom ñu def seen projet de foofu nag la rabek di ñëwee nag. defal leen un accompagnement un suivi nga xamante ne du am benn euh, rëq-rëq boo xamante ne mm-hmm. par rapport ak formation bi ñu ko defal. selon choix euh, waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que dama gis ñu ne euh, enfant ñu bind santé de la reproduction. bind ardent. est-ce que loolu ay programme la wala juste âge bu nekk ak programme bi nga xam ne moom moo fa nekk. peut-être de la puberté. dañ foofu ñu soxla aussi formation ci beneen côté lu mel ne économie solidaire lu ci mel ne. citoyenneté parce que jeune bu ne war ki nekk sa biir réew ndax loolu dafa nekk rek euh, ci ak euh, programme bu nekk la wala jeune bu nekk âge ba nga toll ak ak programme bi nga xamante ne moo fa nekk. voilà comme ni nga ko waxee rek euh, monsieur Fall donc programme bu nekk rek dafa am cible am. Hmm. donc programme bu ne ak cible am tey boo jëlee tey plaire dafa am cible les jeune filles de âgées de douze à dix huit ans wala vingt ans. Hmm. tey boo jëlee ardent talibé ñi nga xamante ne ñu ngi ci daa yi la. de cinq ans ba dix huit ans aussi boo jëlee aussi ardent euh, authentique ñi nga xamante ne ñu ngi si collectivité éducative yi ñooñu aussi de sept ans à seize ans la donc ñun suñu programme programme bu nekk la dañu jël benn bu ne économie sociale et solidaire ce sont les femmes ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu njënd ak njaay mhm. ñu soxla ay financement donc boo jëlee aussi centre la production aussi ay ay ay ñu soxla foofu ñi nga xamante ñu ngi si âge puberté mhm. donc ñun suñuy programme programme bu nekk rek dafa am cible spécifique boo xamante ne moom moom moo fa nekk. Mhm. El voilà donc euh, par rapport ak euh, question bi par euh, bi nga laajte si li nga xamante ni moom la ñuy taxawoo xale yi nga xamante ni dañu nekk ci yenn gàllankoor yi. récemment rek am na suñu benn équipe boo xamante ne mi ngi ànd ak suñu partenaire yi ñuy wax United Purpose ak Penny Apple di saluer Pape Oumar Ndaw de passage. donc ñi ngi àndoon ci yenn village yi nga xamante ne bi ñu defee cartographie xool taalibe yi nga xamante ni ci zone bopp mhm. HLM Euh, waagu ñaay biscuiterie yi taalibe yi fa nekk seen zone de provenance mi ngi nekk ci côté commune de Sadio village Kambel village yoo xamante ne ñi ngi côté boobu noonu donc il a fallu ñu dem foofu xool ban situation la parents yi d'abord nekk parce que tey su fekkee da bëgg a agir ci xale yi kese bàyyi parent yi yaa ngi sànni sa xaalis ci mbedd mi donc il faut d'abord ñu xam source bi d'abord mhm. donc ça nous a permis ñu mën a dem si parents yi xool ak ci qu'est-ce qui se passe là-bas donc on a constaté qu'il n'y avait pas d'activité les femmes à part saison des pluies maanaam si nawet bi la dem tool ya su tool ya demee jeexee dootuñu def benn activité donc on s'est proposé de faire des formations yoo xam ne dañ leen ñu def ay activités génératrices de revenus moo leen di permettre tey ñu mën a liggéey ba dootu ñu jël seen doom di leen yóbbu ñu nekk ci daara yi wala di def naka su noonu donc loolu noonu permettre nañu ñu mën a cerner li nga xamante ni moom mooy source bi ba fu mu nekk nii nombre de taalibe yi gars yi doon indi wàññeeku na bu baax léeg-léeg sax gis ay taalibe yoo xam dañuy am dañuy porter volonté pour delluwaat ñibbi seen seen dëkk yi mm-hmm. mu nekk nii euh, mission de suivi la ñu demoon AGR yi nga xamoon teg nañ leen fa depuis deux ans trois ans ñu dem xool seen i seen chiffre d'affaires te macha allah dañuy def chiffre d'affaires yoo xamante ne association yi nekk fii sax duñu ko def parce que fu mu nekk nii actuellement jàngal nañ leen ni ñuy defaree saabu ni ñuy defaree eau de javel. Mm. même pâtisserie yi nga xamante ni c'est à base de céréales locales ay dugub ak mboq ak ñebbe mm. pâtisserie def leen nañ leen formation yooyu donc du coup tey ku am ngénte si dëkk ba doo soxla jéggaani feneen pour defar ko mm. ñoom femmes yi association femmes yi nga xamante ne mooy ndeyu nekk foofu ñoom ñoo koy defar seen bénéfice ñu xaaj ko lii dem si association dem si association yi mm-hmm. lii dem si ñoom dem si ñoom ba fu mu nekk nii macha allah constaté nañu il y a eu un recul si ni ñuy envoyé xale ici à Dakar. Mm-hmm. donc noonu la ñuy est ce que yéen tam doo leen am parfois ay euh, jafe-jafe ak parents yi parce que Aminata Sang wax na programme boo xam ne c' est vraiment intéressant euh, pour xale yi bàyyi liggéey ci mbedd yi. Mm-hmm. tey euh, nga tere sa doom mu bañ a jaay parce que xale bu jaayee dina indil parent bi dara. waaw loolu loolu loolu xam naa Aminata dina si ñëw mais damay mm-hmm. andi benn kii bu ndaw rek ci li nga xamante ne moom moo andi programme Claire mm-hmm. sànq bi ma koy wax xale yi ngay xamante ni ñoo doon accompagner seen jur yi ñu ñëw yàlwaan yi donc da gis xale bu jigéen bi xaalis bi dafay yomb ci moom mm-hmm. donc au lieu que mu nekk liggéey si moom mais da koy dugal si danger parce que xale place defe naa ni du mbedd ma xale place am kër ga la ak école ba donc tey bu dee dafa nekk ci mbedd ma rek il est en danger wala elle en danger mm-hmm. donc tey jii nii dañuy agir ci parent bi xamal ko li nga xamante ne moom mooy danger bi xale bi nekk parce que ñu bëri dañoo xamul ñu bëri dañoo xamul gannaaw bu ñu xamalee danger bi xale bi nekk nag ñu jël xale bi di def ci moom loo xamante ne waaye jur bi da koy gisal boppam mm-hmm. parce que tey loolu ñuy def ci biir plaire da ngay gis xale yoo xamante ne c'est dès leur première année dañuy commencer di monnaie li nga xamante ne moom la ñuy jàng actuellement soo demee da nga leen gis ñuy defar ay dàll mm-hmm. di defar ay pochette di defar ay sac di ko jaay jaay boo xamante ne du aajo ñuy dem ci mbedd mi ak yëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jege ñooy gis li ñuy def ñu yéemu ci ñu moyen mone la leen ko mu nekk loo xamante ni dafay delluwaat ci njaboot bi mhm. waaw voilà man bi ma li ma war a wax foofu rek ci Sylvie par rapport ak parent yi parce que l'ONG bi dafa am benn département bu ñuy wax économie sociale et solidaire mhm. donc parents yi ñoo ko tax a jóg mhm. donc lu tax ñuy ñuy gunge parents yi parce que xeex li nga xamante ne moom nga wax léegi le travail des enfants euh, xeex aussi la pauvreté comme ni ñu koy waxee parce que des fois dañuy gis benn femme boo xamante ne dafay yor table caam wax na ko sànq pendant des années donc ñun économie sociale et solidaire di saluer de passage notre président national madame Dramé <laughs> donc moom moo yor euh, programme muy du ko doxal nag pendant des années macha allah donc moom dafay defal ay formation femmes yi da leen di accompagner maanaam bu fekkante ne tey dañ na entreprise li nit ñi di xalaat rek mooy ñi nekk ci entreprise yu yi alors que yow mi nga xamante ne yaa ngi yor table entreprise nga yor parce que entreprise du lenn loo xamante ne këru koom-koom la buy dugal di génnee xaalis mhm. donc ñoom femmes yooyu ñoom la ñuy accompagner te femmes yi ay parents lañu mhm. donc parents yooyu la ñuy récupérer di baa di leen avec son ñu gëm seen bopp xool ne ñoom kat dañu nekkoon de étape A donc dañuy a jóge étape A boobu dem ci étape B donc yi nga xamante moom aussi daf koy jox femme yi parce que des di nga gis femme boo xamante dafa bëgg a entreprendre wala commencé na entreprendre mais amul moyen pour finance financer euh, projet am donc Aodiba aussi loolu lay def day accompagner femmes yi soit ci formation en entrepreneuriat mais aussi da leen di accompagner aussi ci financement yooyu aussi mhm. donc parents yi aussi bàyyi ñu leen ñoom itam dañ leen di gunge ci ci ci kii bi mhm. ci combat bi mhm. d'accord comme ça ñu mën a bàyyi xale daal ñu mën a surtout euh, voilà am na solo euh, donc ñu wax suñu dernier point bi nga xam ne temps yi phénomène bi mi ngi gën di bëri maanaam xale yi nga xam ne dañuy réer porté disparu yi ñi nga xam ne dañ leen di sàcc est-ce que yéen euh, am ngeen euh, benn programme boo xam ne dina tax euh, ñu téye xale yi parce que tey ñu ngi ci vacances période vacance te boo ne période vacance xale yëpp dañuy tëj mhm. parent yi di nga gis ñoo xam ne du ñu am jot dañuy dem liggéeyi mhm. ñenn ñi mun naa ne xale bi da di sonal daal si biir kër gi du ko yaay gis parent boo xam ne sax day dàq xalem na ko mhm. dawal foow yi dawal yi te xale bu génnee am na loo xam ne lépp mun na ko dal ci mbedd ñi dañuy jël seen doomu yóbbu leen ñu dem vacances te dem vacances léegi ku ne xam na ni wóoratul jamono bi mu tëre të de di viol yi fii pédophile yi fii et tout est-ce que am ngeen benn programme boo xam ne dina protéger xale yi ci côté boobu sàcc beeg yooyu. voilà Sylvie defe naa côté boobu noonu. <laughs> defe naa sujet d'actualité boo xamante ne chaque mhm. jour ñu ngi siy ñu ngi si mhm. ONG bi te ñu ngi siy dox suñu kéem kàttan mhm. euh, foofu suñ fa duggee dafay nekk responsabilité partagée parce que xale dañ ne la place xale fan la du si mbedd ma mais ngay sensibiliser parents yi très ñu mën a am benn changement de comportement positif boo xamante ne normalement benn minute bu romb rek war nga xam sa doom fan la nekk. Mhm. malheureusement Sénégal bokk wala boog dakaar wala boog man sama quartier sax laay njëkk a wax. Mhm. foofu ngay toog ba une heure matin xale romb la di dem te àndul ak ndey àndul ak baay. kon loolu noonu problème la boo xamante ne d' abord il faut agir sur la conscience des parents. Mhm. ñu mën a xam seen fan mooy seen place doom dëgg-dëgg. mais aussi tamit beneen li tax ma ne euh, responsabilité partagée la mooy fu mu nekk nii man boog jàppee ma ko raison. les parents n'ont plus le temps amuñu sax seen jotu bopp ñu ngi daw suba ak ngoon guddeeg bëccëg waaye la ngay daw suba ak ngoon guddeeg bëccëg defe naa ni soo toogul jàpp sa doom téye sa doom la nga daw yëpp après di nga ko investiraat soit nga mhm. faj sa doom wala nga dugg di yéeg di wàcc mhm. Mhm. ñun à niveau dañu développer collectivité éducative boobu donc instant bi nii équipe ardent bi mi ngi préparer camp de vacance boo xamante ne c'est pour ces enfants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci gox goxaan yoo xamante ne léeg-léeg dañuy gis colonie de vacances kese ci tele bi duñu ci dem xamuñu ko. Mhm. donc dañ leen di ñu mën a participer à ces colonies mhm. donc ñu ngi préparer nekk ci préparation pour organiser colonie bi mën a jël xale yi di leen ñu nekk ak ñoom nekk ak ñun sax pour ñu mën a def ci ñoom loo xamante ne tey ñoom seen wàll bopp dinañ xam seen place fan la. donc heure génn mbedd si jotee ñu xam ni waruñoo génn ci mbedd ma ca kër gi la ñu war a toog. Mhm. donc par rapport ak loolu aussi sànq yaa ngi doon wax euh, organisation journée de l' enfant ONG e chaque année da koy def. dañu naan ay du yam si bopp borom donc marché yi nga xamante ni ñi ngi koy organiser boobu léegi moo tax ba léegi nii mënuñoo organiser suñu suñu suñu manifestation boobu mm-hmm. parce que nous avions convenu d'organiser une randonnée pédestre avec des thèmes organiser des conférences boo xamante ne dañuy convier ñëpp ñoo xamante ne ay acteurs lañu ci ci domaine boobu pour def ko mm-hmm. mais mm-hmm. depuis le 16 ba léegi ñu ngi koy reporté mais incha allah am nañu yéene def ko suba incha allah ci ngelaw bi sàll Amady Thiam donc invité AMO bi parce que ñoom ñooy acteurs yi CDP yi yi di leen soññ leen aussi tamit ñu gën a taxaw ñu ngi def seen liggéey gaa mais aussi ñu gën a redoubler d'effort xam ni société bi moo ko laaj mhm. société bi moo ko laaj fu mu nekk nii gars yi dañoo désorienté carrément macha allah mhm. yitte yi spéculation yi yooyu noonu yëpp mhm. suñ ko naree topp rek dañuy andi musiba c'est connu c'est au niveau communautaire wala c'est au niveau euh, régional kii bi mooy ardent bi bi ngeen def na waa bii nii ne malheureusement c'est au niveau c'est au niveau communautaire maanaam suñu zone d'intervention parce que daaw on a eu la chance d'accueillir des enfants venant de Diourbel la dernière fois qu'on a eu à organiser ça mm. am nañ xale yoo xamante ne comme niñ ko gisee seen parents yi gis affiche bi mu intéressé leen ñu contacter ñu mm. y a pas de souci ñu andi leen mm. parce que aussi il faut qu'on se le dise nous n'avons pas ñu dem maye toute la ah, toute la kii mais ana ministère bi yor petite enfance ah! affaire ñun daal heure bind su jotee dinañ bind <laughs> dinañ bind a ñun daal ñu ngi jéem ak suñuy propre moyen mais nag dañ fësal seen i activité comme ça partenaires yi sax ñoom ñooy ñëwal seen bopp waa man pour rebondir un peu ak sa question parce que euh, ñun lu ñuy def en général ñun waa département santé sensibilisation la ñuy def donc euh, suñu requête bi nga xamante ne bindoon nañ ko muy requête nationale bi dañ ci def deux cibles les jeunes et les et les et les parents les mm-hmm. femmes donc bu ñuy def ay panel di waxtaan dañuy dañuy waxtaan dañuy woowaale les parents ñun comme ni nga ko waxee rek sensibilisation boobu nga xamante ne moom la ñuy war a def pour parents yi xool seen njaboot ko defee sàcc boobu mën a mën a mën parce que boo sensibiliser wul nit ki aussi du xam am ñoo xam ne du ñu xam dañuy xëy rek foog ne euh, àdduna dafa metti góor dafay wuti jigéen dafay wuti mais bu fekkante ne moom parent bi surtout ku jigéen ki nga xamal ko ne kat ah mën ngaa mën a wuti kat mais aussi nga am benn temps boo xamante ne da nga koy da nga koy xool ci njaboot gi donc ñun sensibilisation boobu la ñu moo tax en général gox bu ñu dem rek dañuy def benn panel panel boo xamante ne dañuy woo parents yi ñu ñëw toog woo xale yi ñu ñëw toog ñu xamal leen donc manque d'information bi nga xamante ne nekk na ci yenn parents yi ñun dañuy ñëw di leen di leen di leen di leen former di leen sensibiliser aussi pour rek euh, comme ni nga ko wax léegi rek problème yi nga xamante ne moo nekk ci réew mi sàccu xale yi parce que dafa bari léegi. Mm-hmm. xale yi di dee fii ñu leen di sàcc fii ñu leen di violer fii aussi lenn rek nga mën a defal parents yi mooy lay sensibiliser donc ñun ONG Rabec aussi loolu la ñuy def. bàyyi ñu bàyyi ñu benn benn couche quoi bàyyi ñu mm-hmm. benn couche. Mm-hmm. ba tey si côté boobu euh, tamit foog ñu wax ko du neex. mais aussi suñu communes yi dañoo liggéeyul loo xamante ne dafa intéressé xale yi wala boog loo xamante ne pour téye xale yi la pour tënk xale yi. Mm-hmm. parce que soo gisee ni dëkk yi configuré wu. léegi pour téye xale ci biir kër dafay dafay jafe. ndax kër yi xat na. Mm-hmm. néeg yi xat na. da ngay gis benn famille boo xamante ne benn néeg la ñuy luwee xale yeeg mag yeeg. ñëpp nekk ci biir moo leen di dàq. ñu te xale dafa am énergie boo xamante ne da ko war a génne par force ci yaramam. Mm-hmm. énergie boobu mënu koo génne si kër gi a koo génne ci yaram bi il est obligé mu génn ci biti mais nag dafa waroon a fekk nag suñu commune yi liggéey liggéey boo xamante ne am espace boo xamante ne espace pour enfant la. Mhm. encadré wala boog am programme boo xamante ne dina permettre xale yi suñu ñëwee foofu ñu mën leen a téye. Mhm. wala boog dina permettre parent bi. bu dee dafa am benn rëq-rëq mu mën a faa yóbbu doomam ñu teel ko pour benn deux heures de temps wala pour trois heures de temps mhm. mais malheureusement doo wër commune Dakar ba gis fa benn espace enfant espace mhm. gis espace yi moom léegi tabax dëkk wala tabax bâtiment mhm. immeuble wala toog jeex moom ngoog def ko kon tey jii loolu moo la wax ni responsabilité partagée la suñu gouvernement yi war nañoo xalaat ci loolu parce que tey xale yi ni ñu leen di sàgganee nii suñu avenir ce mm-hmm. parce que xale bi amul benn programme boo xamante ne wala amul benn formation boo xamante ne moo koy permettre mu mën a tënku. Mm. mën a toog mën a xalaat avenir am wala boog mën a concentré wu moom si boppam si ban njëriñ la war a mën a amal dëkkam. Mm-hmm. amuñu temps boobu amuñu milieu boobu amuñu espace boobu. Mm-hmm. donc moo tax ma ne foofu noonu responsabilité partagée la. d' accord waaw mais du moins am ngeen am ngeen ko euh, recherché ko wala boog ñi nga xamante peut être tey lu ci mel ne yeneen ministère yor wàllu affaire petite enfance bu ñu bëggoon jàppale peut être. Mhm. Euh, dañ mën a am fu ñu jaar. parce que parce que ñu ci euh, seen programme yi c' est vraiment riche. mais xam nga xaalis rek voilà mm-hmm. waaw foofu xam nga euh, ONG bi dafa am am na site. Mhm. am na page boo xamante ne aussi Facebook. Mhm. chaîne YouTube aussi am na fa. donc pour pour ñëwaat tuuti rek ci programme bi nga xamante ne defoon nañ ko lu yàggul au niveau de bay la dañ bu ñu bindee suñu requête nationale comme on n'a pas de financement ni de subvention. Mhm. li ñu def rek mooy dañu bind ay lettres. lettre de subvention la ñu bind. plus d'une trentaine de lettres avec des dépliants. yóbbu ko ci ministère comme ni ngeen ko waxee. parce que aussi boo bindee programme après amoo financement da doo xo doo toog rek di xaar état ñëw financé la donc ñu dañu sol suñuy dàll ñun équipe bi waa RABEC ñu si ñëpp ñëpp jàpp ci ñu jël dépliant bu ne boole ko benn lettre de subvention boo xamante ne soit bi ministère bii la jëm mm-hmm. bi direction bii la jëm bi structure bii la jëm donc amul fu ñu déposé wul pour rek am financement bi mais pour am financement aw Sénégal comme ni ngeen ko xamee yombul mhm. waaw mais amul amul fu ñu déposé wul waa ONG RABEX si seen programme yi nga xamante ni bëgg nañ ko dérouler mais tooguñu rek di leen xaar parce que euh, ñàkk ñàkk pexe pexe la ñu loolu mooy suñu suñu slogan mhm. mais amul fu ñu déposé wul si structure yi mhm. surtout ci ministère yeeg ci direction yeeg ci yenn structure yi aussi justement huit minutes moo ci des peut-être boo leen message comme on de financement euh, message à lancer partenaire au gouvernement pour ñu mun a ñoo jàpp seen programme bi. Mhm. voilà ONG RAMEC daal ñi ngi fii man li may faral di wax sama gars yi may leen tant qu'il y population ñun am nañu liggéey parce que suñu liggéey mooy pour le bien-être communautaire te communauté bi waxoo xar yi waxoo nag yi nit ñi ngay waxal. Mhm. donc ñun daal ñu ngi fii avec euh, aussi par rapport ak su suñuy kii am nañ site. am nañu rabe rabe comme am na rabe point org am na mhm. mais aussi tamit am nañ ay numéro yoo xamante ni suñ numéro téléphone yi ñu ngi si mhm. mhm. voilà donc après Amina mu joxe numéro téléphone ONG Rabek am na numéro fixe am na aussi des numéro téléphone portable par rapport ak département yëpp seeni i ñi ngi foofu noonu aussi tamit euh, di comme ni ngeen ko waxee rek lancer appel euh, les acteurs parce que comme ni ñu ko defee programme bu jóg rek département bu jóg pour war liggéey xam nga ñiy yëngatu si domaine boobu. Mm. pour financé donc dañuy fexe def benn cartographie déposer suñuy at ñuy demande si ñi nga xamante ni ñoom ñoo kii mais malheureusement comme ni ko Amina waxee Sénégal moom soo sa loxo soo amul rallonge rek dafay xaw a <laughs> dafay xaw a compliqué. pour nga mën a activité yooyu def ci vacances instant bi pour occuper les effectivement actuellement ñi ngi préparé camp de vacances bi waaw ñi ngi koy def à Ndayane Ndayane di benn. Euh, village lébu boo xamante ne mi ngi nekk wetu Popenguine moom Popenguine ñoo takkaloo di village boo xamante ne village bu riche la mhm. moom defe naa fa la ñu war a def beneen pooru pooru pooru Sénégal bi donc fa lañ koy defee euh, di collectivité boo xamante ne ce sera riche en programme en événement et aussi tamit en activité parce que dinañ fexe xale bi su fekkee ni dafay bi muy jógee ci këram mi ngi am niveau un su ñëwaat foofu dina nekk niveau trois pour ne pas dire niveau deux mhm. parce que j'ai eu la chance de participer à ces même man en tant que mag dama jàng si activités yi nga xamante ne xale yi dañ koy def foofu. Mm-hmm. donc euh, ñuy lancer appel nit ñi ñëw jàpp si. donc euh, li ñu war li mooy déposer lettre yëgal nit ñi ñu ngi koy def li des nag mooy nit ñi ñëw wuyu suñu jàpp programme bi parce que tamit. dañuy naan le bien-être communautaire lépp ñëpp la. lépp mm-hmm. ñëpp nag lu ne ku ne nga ca. Mm-hmm. kon lan appel boobu laay lancé si euh, li nga xamante ne moom mooy suñu activités yi ñuy def. Thiam waxee rek euh, dañuy lancer appel rek parce que programme ONG RABIC dafa bëri te dafa riche macha allah donc te li ñu tax a jóg rek mooy la population leur bien-être donc dañuy lancer un appel rek autorités yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi euh, yenn ONG yi nga xamante ne ñooy financer ñun suñuy programme ñoom tamit ñu ngi leen di woo pour euh, ñu ñëw jàpp ci combat parce que combat bi combat ñëpp la mm. du combat ONG RABIC rek mais combat ñëpp la donc ñu ñëw jàpp aussi ci combat bi di wax ne ONG yàgg na fi di liggéeyal population bi depuis 2004. bi mu nekkee ONG donc ñu am site am euh, am page ak yooyu yëpp euh, suñu numéro fixe mu nekk 33 864 27 36 loolu mooy numéro fixe bi 33 864 27 36 suñu directeur di Youssoufa yi ñu koy nuyu de passage macha allah moom it euh, amul benn problème du ñu dungee aussi si suñuy programme nekk un nom humble et, et simple aussi macha allah. ñoom tamit euh, boo leen ko bëggee woo aussi man ngeen jël aussi euh, numéro wala boo leen woowee ci fixe bi rek. moom am problème jël rendez-vous ak moom ñëw waxtaan ak moom ci suñuy programme ñëw financé ñu parce que ñun loolu la ñu soxla ah, financement la soxla subvention la soxla pour euh, mën a dérouler à bien suñu suñu suñu activité. léegi nga joxe wàllu site pour ñi nga xamante nañu gis suñu activité yi nga xamante ne depuis. Euh, bi ñu nekkee ONG ba léegi 2004 ba léegi ñuy def activité yëpp a ngi foofu aussi. d'accord am na solo euh, li ñu cëral ci waxtu daanaka jeex na dama leen di bàyyi rek ngeen tàggatoo. voilà donc euh, jërëjëf Sylvie si invitation bi jërëjëf sëñ Fall si invitation bi di ngeen may ma ma. Euh, encourager aussi remercier ñi nga xamante ni parce que rabet ñi fa nekk ñëpp ay volontaire lañu. Mhm. weer du dee ba kenn taxaw daal di ne ma. Mhm. donc ku nit su lay defaral loolu donc soo amee occasion war nga ko mën a remercier encourager ko si loolu muy def. di encourager acteur yëpp ñi nga xamante ni ñoo ñu fa jiitu mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fa fekk ak ñi ñu fay bàyyi yëpp. Mhm. di leen encourager ñu jàpp ba xam ni li ñuy def jaamu yàlla la. di nuyu ki nga xamante ni moom moo nekk coordonnateur Kër Massar di Ndiaga ak Pape Sey Diallo moom moo nekk coordonnateur du RABEC à aux Parcelles Assainies ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci maison mère bi donc di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla may leen kàttan ak doole bi nga xamante ne moom la ñuy mm-hmm. yëkkatee drapeau ONG RABEC li tax a jóg ONG RABEC mooy le bien-être communautaire mm-hmm. waaw di sant sama yaay sant sama soxna sant ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ñuy encouragé parce que yombul mm-hmm. di yëngatu si loo xamante ne weer du dee ba ñu jox la dara mm-hmm. tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay supporté di continuer di la supporté war nga leen a mën a ñaanal mm-hmm. donc ñi ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp di leen euh, félicité si ngi nga xamante ne moom mooy organisation ñaan yàlla rajo bi jëm kanam ba lépp loo xamante ne moom ngeen ci bëgg rek incha allah ngeen gis ko. amiin Aminata voilà merci beaucoup Sylvie d' ñu ngi leen di remercier yéen nga xamante ne yéen ñii ñu invité ci seen euh, émission bi di ñaan yàlla rek ñëwaat fi ak yeneen i émission aussi macha allah di remercier suñu njiit di Youssoufa Badji comme ni ma ko waxee sànq rek. mu nekk ku baax koo xamante ne euh, day jàppale ndaw yi loolu moo ko tax a jóg donc ñu ngi di remercier ONG membre yëpp macha allah bàyyiwuñu kenn parce que comme ni ko kii waxee rek euh, ñoom ñëpp ay volontaire lañu. Mhm. Euh, parce que ñoom ñëpp dañuy jàpp ci liggéey bi comme ku mel ni Pape Gora tey moom moo tax bu ñu am émission bi donc mhm. moom nga doon jokkal Pape Gora Diop. ñoo mhm. ñuy ne ñoo nekk ci ONG Rabik département yi kenn. donc di remercier aussi parce que nit ku nekk rek am na kilifa donc man sama kilifa moom moo ma permettre ba ma ñëw ONG Rabik di liggéey. muy sama jëkkër ma koy remercier aussi de passage. di remercier tout le monde di ñaan yàlla rek euh, defal ñu sutura lépp lu ci ci population ñun waa ONG RABEC rek yàlla gungee ñu foofu ba ñu mën a def suñu activité yi. d' accord merci beaucoup Mor Fall euh, ma lay gërëm yow it euh, di gërëm euh, ONG RABEC di fàttali moo di réseau d' association pour le bien-être communautaire di réseau boo xam ne. Euh, képp kuy borom doole rek war nga cee war a mën a dugal sa loxo ndax euh, seen i programme seen liggéey am na solo ah, askan wi dong lañ ko daal di jagleel mm-hmm. euh, di gërëm Assane Aminata Diouf mi fi toogal ONG RABEC moo di gestionnaire projet coordonnatrice du département de la santé de la reproduction di gërëm El Hadj Thiam Euh, relais communautaire consultant en santé travail ñu leen di gërëm bu baax seen teewluwaay di gërëm ba Cissé mi féetewoon ci technique bi ak mboole mbokk déglukat bu ñu doon bàyyi xel jamono ji mbokk yi ñu leen di daje mercredi bii di ñëw même heure même fréquence